ndigalul njiitu réew mi dafa dafa laaj waxtaan bu yaatu lal ko pour que ñu jéem a en tout cas organiser loolu ndaje boobu parce que li am solo ci ndaje boobu mooy que ni ci suñu gis-gis ñun mooy dañu am fii benn occasion extraordinaire pour justement euh, def genre plaidoyer waaye itam sans complaisance def diagnostic bu profond

quasiment natt ko ci lan la laaj ci walu doole manam investissement pour safar mbir yoyu foog nañ ne li occasion la bo xam secteur bi waru ko en tout cas waru ko raté war nañ def suñu kémtu lay kattan pour que muy administration bi waye muy acteur yi acteur bi muy pêche artisanale wala pêche industrielle nan la ci wàll wàll bo xam c'est organisé ñu def suñu diagnostic euh, cause yi lan la suñu gis-gis itam ci wàllu solution solution yi lan la waaye solution yi itam lan lay laaj maanaam pour def ko tey fan la ñu war a jaar ak lan la laaj ci koppar wala ci ci sax yenn saay xam-xam parce que recherche baa ngi ci biir euh, ba jàpp ni loolu buñ ko defee secteur pêche dana gën a siggi gën a jëm kanam parce que dañu fàttali importance secteur pêche ci économie sénégalaise euh, te ñu jàpp itam ni xëy na tey taxawaay ba mu ci waroon am des na ci wàllu apport ci économie boobu waaye itam ci wuyu li nga xam ne ci lañ koy xaare ci dundal askan wi waaye ci euh, yokk xëy xëy mi ci ci réew mi parce que occupation bi secteur bi yor dafa am solo macha allah yokk koom-koom bi ba ci ay devises yi nga xam ne tey économie sénégalaise soxla na ko loolu lépp jàpp nañ ni tey mën nañ ko gën a ful bu dee xool nañ lan mooy gàkk-gàkk yi nekk ci secteur bi ba pare indi ci ay saafara. saafara yi nag il faut ñu waxtaane ko maanaam du usine à gaz bu ñuy créer du euh, nu mu tuddati genre foire la ñuy créer déedéet dama bëgg euh, comme ni ma ko waxee samay collaborateur dama leen ne occasion yu mel nii occasion yu rare la bu njiitu réew mi bëggee taxaw ci benn secteur euh, pour gém cee indi yenn saafara yi loolu secteur bi moo war a gën a takku pour ne lii buñ ko buñ ko raté occasion bi buñ ko raté pour jéem a def nan la ñuy fexe ba maximum la ñu soxla ci solution ah ne jiitu réew mi solution yi kat li ñu jàpp ne lii moo koy saafara suñu jafe-jafe waaye itam lii lay laaj ci koom lii lay laaj ci doxalin lii lay laaj ci ressources humaines lii la et cetera et cetera et cetera kon xaw ma ndax dina tënk na ci li ma wax yëpp ci tubaab parce que xam nga tubaab moom dañuy dañuy dañuy bëri wax bu ñu parce que dañ koy mën a bind di ko liir day gaaw mais daal li leen di woot fii mooy que ni xam naa ni ñu bëri dañ foogoon ni sa lancé nañ affaire bi te déedéet ñun dañu ne woon bu ñu demee ba pare dañuy dañ koy lancé ak acteurs yi ba pare nag organiser ko euh, organisation bi mooy dañu jàpp ni war nañu tëral benn comité de pilotage boo xam ne moo ñuy gunge ba keroog ak ñuy pare la lettre introductive ou le document introductif du conseil des ministres parce que nous, avons ci conseil des ministres xam document euh, document boobu document bu document euh, document document pour le il faut que partir du ci